Je suis le président du comité technique de suivi de l'implémentation de la formation professionnelle duale di di centre sargal qui ci ci pour euh, euh, yéene wala qui am mois de novembre forum mois de d'août forum de région de Dakar forum région de Dakar formation professionnelle duale ah, formation professionnelle duale si nous nous koy wax ak li tax ñu mu dafa formation bo xamé ni li ndaw yi soxla ci dina aussi ci ci ndaw yi li économie bi soxla ci xale yu xarañ moom lañ ci séntu ndax day formation boo xamee ni li ëpp ci ci liñ koy def ñu ngi koy defee ci entreprise yi ci seen biir ci seen biir entreprise yi ndaw bi dañ koy jël dugal ko ci biir entreprise yóbbu ko koo xamee ni mooy nekk euh, njaatigeem wala sëriñam kookoo koy xamal liggéey bi ndax suñu seetloo bu baax donte ne.

ñëpp dinañ kontaan muy ndaw bi ndaw yi dem xëy di entreprise bi koy bi muy liggéey di bi ko mu dem di réew mi ba tax na ñu ne nañu ndax indi fii ci mi yaatal ko fi ba ku ne jot expérience 2017 ñu gis ne fukk ci formation bi entreprise moo leen mujj moo leen moo leen recruter loolu tax na président recruter nag mun nga wax ci wolof ah moo leen kii moo leen. bind moo leen bind. ci euh, tax na président Macky Sall jël projet boobu muy expérience def ko programme en mars 2018 programme boobu nag di dox programme yu tuddee ko fii programme de formation école entreprise soxna si toog sama càmmoñ bokk na ci ñi ko fi teewal programme boobu nag ñetti pàcc ñoo ko ñoo ko ñoo ko téye ku ñuy wax conseil d'orientation conseil comité technique de suivi de l'implémentation ak unité de coordination yi muy projet bi ci programme bi ci boppam ñu ànd ñun ñëpp manko ne ni ñu mën a def ba mu gën a yaatu ci réew mi mooy génne ko ndakaaru yóbbu ko ci gox goxaat yóbbu ko ci réew yi réew ci biir réew mi te loolu mënuñu ko def te jaaruñu ci ñiy yëngu ci koom-koom dañu def ay banqaas ñi nekk ci numérique dox informatique ak li ko wër ñi nekk ci batiment travaux publics ñi nekk ci Nous fexé ba jariñoo li sax ak li ñuy li ñuy dunde ñi nek ci industrie ñi nek ci j'ai oublié hôtellerie restauration ak tourisme manam ñi liggéey ci hôtel yi ak restaurant yi ak tourisme loolu nag mooy yoon bi ñuy jaar xàll bi ñu bëgg a jaar pour gën a dugal formation professionnelle duale te ñi leen fi togal branche yooyu ñu ngi ci biir comité bi lépp lu ñu bëgg a def ci ñoom la ñuy sukkandiku pour mën koo def mën a gën a dugg ci koom-koom bi ak ci xarala ak ci këru xëyu xëyu xëyu liggéey ndaw yi am nañu yaakaar ne am nañu yaakaar ne forum bi ñu nar a organiser weer wi di ñëw ca jeexantalu weer bi dina tax ñu gën a xamal Sénégal te Dakar, Dakar ci ndax daf Saint-Louis dem nañu Ziguinchor Dakar nous mujjé programme bi ñi ko ñi koy diko partenaire financier et technique bu Allemagne ak Suisse qui top mon fi coopération allemande GIZ

dina ñëw ci yéen dina ñëw dina ci ñeneen ñu bari ci yéen ñu ngi jàng seen liggéey ndax dañuy ànd ak koo xamee ni moo yore caméra kii di jël son kii di def présentation ba keroog ñu koy mën loolu donte ne Allemagne ak Suisse lañ ko demee jëli ji du gan fii foo mës a toog tex bugg foofu fàttali naay fàttali li ñuy wonoon wax bàyyi jagal xëy na ñi gën a nekk ndaw ci yéen xamuñu loolu mooy lan waaye bàyyi jagal danoon nekk maître koo xamee ni day yore taalibeem day ànd ak apprenti am pénc mu ne mu dem xëy fa su xëyee pénc mi tey soo léegi beneen pénc lay dem su ñëwee ci diggu pénc mi lay toog jël furno walla cin fëgg ko ñépp ne xale bi apprenti bi yuuxu ne ku am lu yàqu ci kër gi na ko génne ñu ñu defar ñu génne lépp lu yàqu ci kër yi lépp luy ndab wala ba ci leket lu mënti doon loo indi yu jagal ko dootuñu ko bàyyi jagal loo fa indi lu jagat yi ñu jagal ko loolu mooy bàyyi jagal ba keroog apprenti bi doon woote mën lii li patron mën su ko mënee patron bi jox ko lijaasa maanaam na ko léegi dootoo ma dootoo ma dootoo gunge wutal ku la gunge man maa ngi dem noppaliku ji loolu mooy li ñu mën a xamee lan mooy njariñu tàggat ndaw yi ci seen xarala jaarale ko ci li ñu war a def ba mën ko ñu wan leen ko te fi ñu leen ko gën a mën a wane mooy entreprise waaye du tax académie bi nga xam ne ñoo ñooy joxe diplôme xam ne ñooy organiser examen yi concours ñooy seet programme de formation et plan yi nu ñu ko war a tërale du tere ñoom it ñu du tax ñu génn ci seen loxo ndax ñoom ci la ñuy bokk seen cër joxuñu leen ko constitution bi ko jox état bi moo leen ko jox ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu éducation ak formation ñu leen gërëm di leen sant di leen woo ci ndaje bi ñaan yàlla may ñu fekkee ko ak tal yàlla defal ñu ci taw ci